fii ba mu taxaw nii tey kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla waaw moo tax ma ne ma loolu yëpp nag bëri na leen sant na leen ak sunu caméraman bi kenn du moom. mbay kii mooy jinne caméraman yi. jinne caméraman yaa ngi. mbay lu ko lu ko. africain yi nii wóor na leen ñu toog man di Serigne Touba billahi wallahi taala digal dina xam

dina fa am. waaw waaw dara waxal ne ko xool mbër xam ne mbër dafa métti. tey saa ko gënoon waaye tey saa yaay boobu combat bi ndam rek. nga mbooloo bi ni mu toll. waaw tey jii boo. xale wax dëgg ñu ko yéene bi quoi. dina yàgg wala du yàgg. ñu tollal fii tey saa ko ñu jaara waali. loolu la ñuy tey ñu ko war a waa jaara waali yëpp. Omar Sénor xool Sénor Ousseyn. dëgg la Faye. waaw waa jaara waali yëpp ñoo jàpp si laa asalaamaaleykum di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout waa Yaraax gis nañ mobilisation bi te dara xewagul macha allah ñu leen di wax rek combat bi le 12 incha allah dara du yomb comme d'habitude ñu jaar fañ daan jaar sigil ma lay seen neel méng mu lay wër en même temps nga sa yaram muy glissé maraanu gaynde bi wëus rek la ñuy topp. waaw la bis bi suñu waaye daal incha allah comme incha allah liñ demoon noonu lay def dañuy ñëw defal gan yi bagage ci gaaw incha allah yaa ngi si jàmm. incha allah bu ñu koy def bëre lay def ah. kooku ñun boo xoolee ren li mu nekk si si ay mbapat yëpp parce que bu fekkee 15 la war moo jël kon wàllu bëre bi ñu ngi jeexal entraîné nañ ko ni mu waree te ànd naa ko boppam yang si lan ngeen pare ci xeex ngeen pare wala ci bëri ngeen pare. non si bëri ci xeex yëpp. maanaam pare ngeen ci ñaari côté yëpp. amuñu dara lu ñuy xaar ci lenn lépp pare nañ. waaw pare nañ incha allah. bis bi rek xaar. waaw bis bi rek la ñuy xaar dëgg lan ngay wax sa mbër. waaw mbër li mu wax rek ndax nit nit bu la bëgg rek daw ba ngir xam la bu bari bi kon li war na mën a jàngat mu mën a xam boppam xam fu mu teg tànkam xam ne àdduna nii la bu ànd ak say mbokk nag il faut ngay def lu leen di neex li leen di neex mooy yow su bëgg-bëgg la ñu ngi la si jàppale boo leen déggalee ànd ak ñoom mën nga def ba nekk roi naa fi mu teg tànk boo tegu incha allah bientôt dina nekk roi des arènes waaw ah, moom ñu bëri dañ koy moom mbëru mbëru attaque la quoi am moom parfois ak ak ni mu demee parfois sax attaque war nga ko mën def geñ dem xaar la si lamb moom xel mu dal moom moo koy def amaana jamono yooyu am na nu mu doon demee si côté moo waral yu bëree bëri mu doon demee ne mais fi mu toll nii xelam dal na entraîné na am na doole te jàpp na ne ànd naa ki mbokkam kon nag amul lu ñuy xaar ci moom wala lu ñu def ci leneen côté bëre maîtrisé na lépp lu lu adversaire bi laaj da koy def incha allah ci nu mu gën a gaaw day daw rek ah kon daal yéen bis bi rek ngeen di xaar waaw waaw ñun moom fi ñu toll pare na ah. bis bi bu doon tey tey tey tey bu ñu paree caravane ñoom jàpp dem bëri wallahi naa amuñu dara dara dara lu ñuy xaarati fi ñu toll nii ah. lépp mën na waaw ah, baax na kon waaw sant jaajëf ndeysaan ni la ko ñu mbaxal wees nee na dugal si ñëpp ñu ñaanal la jël xamul ko ñu doon barke barke ñu ne dibi ndeysaan waaw ànd ak ay moow waaw tey ñu ngi ànd ak ay chauffeur barke ñu ne dibi tey ay classe kat day ñuy jaay ay mbër ndeysaan tey ñëpp la ñu àndal tey tey dañoo jaxasoo kon añ moom du problème ma ne ko tey ca Mbamba ca lañ ne ko mar ne mooy ca Mbamba ca ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw jibu laal ko ci buntu bi allo yaa waay salaamaaleykum allo salaamaaleykum yéen ziar yaa wër yéen ziar lépp jaam waaw fils incha yaay wëy ah waaw kontaan waaw kontaan rek kontaan rek xam ne doomu dëkk bee jug waaw doomu dëkk bi moom su jugee waa dëkk bi yëpp a war a waaw waaw mu ngi xasan deret baa ngi yëngu quoi waaw gis nañ yéene bi gars yi am si ñun quoi waaw di saako si ñëpp ñaan rek yàlla defal ñun tam incha allah moom la ñuy dagaan tey waaw dañuy dugg si nit ñi ñaan yàlla defal ñun tam incha allah. Diga tay ma lay la diga What That's it. Give me a message on

na moo yaraax tey mu am bësam génn def caravane di xool doomu waa yaraax yëpp fépp fu yaraax nekk mun la jabo yoxo di sàkku ñaan ci kombaam digganteem ak ndigal tey ji bu mag mag la ñuy def ana waa yaraax fu ngeen nekk génn leen woo jàmbaar ngi nii xale yaa ngi nii xale yaa ngi nii caravane ngi nii xale yaa ngi nii caravane baa ngi nii fépp fu waay mën a nekk deux fois maa nekk na génn te xam tey caravane bu mag a mag la ñuy def tey di sàkku ñaan ci bépp jeune boo xam te nekk yaraax wala bépp mag xam ne doom waa moo jóg tey di def caravane bu mag. mais kii mooy président STF Wos Jàmbaar président STF Wos Jàmbaar moo nekk nii président STF Wos Jàmbaar ñu ngi ko laaj tey lu mu xam ci caravane bi ak nan la préparé ak nan la waajee. waa Daouda dañu kontaan bu baax ci bi caravane bi moom maanaam ni ko gisee nii gis nga waaye yaraax génn nañ sas nañ ko ndax maanaam kenn amul lu dul sa gox. ci waa Yaraax mang manko nañ xamne ne seen mbër genn na dafa bëgg ndam gaa yep def convoi and ak mom li nag mom fi ne sas la ci mom mom mo wara a xam li ko war mu def ko ci japp na na yoon wi mu nekk boo bayul bento dina deg roi des arènes inshallah allah dañ dégg roi des arènes tay da melni yarax yep mobiliser nak mobiliser nga waye rax yep genn def dugg porte à porte def kër yep di sàkku ñaan bëpp kilifa bo xam ne nga Yaraax tey génn nga and ak mbër mi and ak sa mbër di wër di wër population yi pour ñu sàkkul la ñaan wa xam nga xam nga ñun ay julit lañ ci julit mom dafa fonk ñaan ndax ñaan moy doole julit kon tam buñ joggé li liñ dañu def li nga xamné mom ñaan ko am sa 100 francs jox ko am sa juroom jox ndax loolu moñ taxa jog bo dé ñu jaayal suñu lamb man am public bi ñu soxla bo dé buñ joggé way raa bi jog xamné dal li seen dom mo jog seen xarit seen rak ah ñaan ñi mu nekk seen mag kon nak li war moy waajal suñu bis bu ñëwee ñu japp gan nga defal ko affaire wa ko mooy président taala ñu ngi koy sant diko ko ci caravane bi tay ji mi ngi mi ngi mi ngi doxal lu am solo ci wos jambar ki départ Weur Jambar ba léegi moy Weur Jambar moussa xaadi ben yon moussa sius ben yon moussa tok ben yon Sa ta la ñu ngi lay sant di la gëreum bu baaxa baaxa baax a baax te ñu ngi sakku sa ñaan bu baaxa baaxa baax xamna ni bo amé bo boo yalla boo ñaanee ko ñu ngi sakku sa ñaan bu baax waaw merci inshallah allah dañuy def ñaan mom mom ñaan mom inshallah allah dañu ko def inshallah pour am nam ndax ndamam suñu ndam la wa inshallah allah dañuy sàkku ñaan ci ñepp dam ku ñu mëna a ñaan nga ñaan ñu rek ñu mëna am ndam ba mëna nek roi des arènes inshallah ñu ngi lay sant bu baax ki moy mambay président supporter ki moy mambay président ki moy mambay président supporter di doxal lu am solo nak di doxal am solo nek ci nek ci staff Weuz Diambar nek fa nekk bu am solo boy bu kul déggal ñep di déggal ñëpp Mame Mbaye loo xam ci supporter mu mobilisé nga waaw ginaaw bi sante yalla jilu ci si yonent bi di sant suñu ñaari wajur di ñaanal yalla ñàppam jamm di ñaanal ki nga xam si ni moy borom bis bi di wos jambar yalla may ko ndam loolu dus ci kaw ndigal waaw walu supporter soobee yalla la koy feetal si ñun la ne di sante wa yeengal baray bu baax baax sante wa yaraax bayu ñu kenn paré nañ ci lepp supporter paré nañ duy lu ñu jos yi bala xam nañ ko barki maam Zara Fall ndigal fu ñu jëlee baaxul nara dara de kafe jaay bu ñu jugee si moom ataaya lay jaay kafe lay bu ñu jugee si moom ataaya lay jaay. kaas ndigal ak lay dégg ndigal ak lay dégg. kaas fu ko doon jaay si kaas ji waroon lay mujjee. ah wala Mambay tey nu ngeen mobiliser woo yéen waa Yaraax génn ànd dooleel seen mbër nan ngeen mobiliser woo. xanaa pare ak gëm suñu bopp gëm suñu mbër teguñu ko fenn dañ ko def si entraînement gëm suñuy def mën a bëre. mën a xeex diw bis ba ndigal dina xam ne li ko mbénke ñenkewu ko maanaam supporters yi yéen Weuz Jàmbaar yéen supporters yi Weuz Jàmbaar yi bu jour ba nu ngeen mobiliser mobiliser boo xam te ne bu leen benn mbër yóbbul dara ñun pare nañ ci wàllum supporter xam la mooy dese xam kan mooy jaaxal arbitre bee ñu jaaxal si ndigal kaw gi ñi jaay diggé yi ñooñu jaaxal ñun kii lañ jor borom si kii mën a ah seen en même temps nga bàyyi seeram muy grité ragal du sangoo balaa nu gaynde ñun duñu ànd ak ragal barki séeréer la waaw kooku mooy Mame Mbaye président supporter bu Weuz Diambar di doxal lu am solo ci dëkk bi di doxal lu am solo ci stade bu Weuz Diambar Weuz supporter yi mobilisé wu nañ fi mu nekk ni boo xoolee lii rek xam ne Weuz Diambar bu soobee yàlla stade ba ko feesal ba mu fees. mbër maa ngi nii waaw kii moy kii mooy Diop Ndiaga kii mooy Diop Ndiaga la gana manager kii mooy Diop Ndiaga la grand manager koo xamul dégg ko bokk ci askanu lamb di doxal lamb di tiitaroo lamb di sagoo lamb. tey loo xam ci bisu wës jàmbaar bi. bis bi suñu bis la wës bu xewlee tamit waaye laa ñoo xewle wës ñoo ko yar suñu doom suñu booy la àndandoo màgg bokk bokk bokk li ñuy liggéey yàlla def mu doon mu mbër ñu jàpp la koy bàyyi moom na wës loolu kese instant yi moo tax ñu bàyyi suñu liggéey bépp ndax moom daa nekk koo di ne bii mënuloo am leneen loolu moom suñu dëkk fi ñuy tiiroo moom moo fa nekk mbër kon nag wës kese lañuy liggéey mu lay àndal ba kenn yàlla yàlla def jàmm incha xel dal na man xam naa ni xel dal na ana moom fu ne ana ma mbapat ana moom fu ne li ma gis woon saa yi nii ñu la def distance bi mu jural yàlla yàqu ma àggale ko jàmba làmb de incha la ah xam nga gis ngeen ni Weuz Diambar fi nekk ni un na état. combat bi waxuma combat bi de après combat bi laay xalaat. après combat bi ngay xalaat waaw kon. bu ngeen gisee lii ngeen bu ngeen bu ngeen gisee lii. lenn moo am ndigal ñun du suñu yoon du suñu jaar waaye dañ koy linjaa linjaa yu métti du léedoo. waaw kii mooy Mucaaca kii mooy coach Weur Diambar boo leen rek xam ne kii boo leen gisee rek gis ngeen Weur Diambar Mucaaca ñu ngi lay laaj noo waajalee mbër mi. waaw ah, mais comme d'habitude rek exemple bi ñun pare nañ quoi amatul wax silence la ñuy demee quoi silence dañuy ñëw dóor daan mu jeex. noo gisee waa Yaraax noo gisee mobilisation bi waa Yaraax def. waaw ah, mais naaj na nag naaj na nañ jàppale seen doom parce que futur roi des arènes lay doon ah. bañ bañ bëgg la quoi. futur roi lay doon. incha allah du lay doon. ñu bëgg ñu ñu bëgg doxuñu tant que yaay entraîneur wo jambar nan nga wajalé mbër bi. mbër bi comme dab rek entraîneur entraînement récupération yaana ko kessé mo moo ci am solo. moo ci am solo récupération entraînement bi tañu mëna entraînement. gis nga waya Yaraax ñu ñu génnee mobilisation bi waa def di préparer. waaw mais parce que xam nañ ne bi day dem inshallah allah du amul catu ko top rek day dem roi des arènes lay doon inshallah allah. inshallah allah allah. ñu ngi ñaanal ndam. gis nañ waa Yaraax nuñ génnee mobilisation bi looy wax supporters yi. ah supporters yi nañ jàpp nañ ko jàppale na ñëpp génn dem stade bi parce que booy bi roi des arènes lay doon de. incha allah incha allah wucaca wuca la ñu. wucaca. wuca. wuca. wucaca wuca. wucaca wuca. waaw jox waaw woo jàmbar ñu ngi koy ñaanal ndam. lu sedd guyu. gis nañ waaye rax nu ñu génnee gis nañ mobilisation am solo bi xam ne am na solo bi nga xam ne moom la waaye rax def ñu nga ñaam la seen kër boo gisee gis nga wóos jàmbaar ki may coach wóos jàmbaar boo gisee gis nga wóos pare na ko physiquement mentalement moralement wóos jàmbaar ñu ngi ko ñaanal ndam bu seedu guy wóos ñu ngi lay remercier Wouthia waaw ñoo ngi lay remercier tamit seen taxawaay seen ñëwaay présence beeg lépp am na solo quoi am na nii la a doo leen gisee booy biy dem mbër biy dem ñëw jàppale ko génnee ko xam nga dox si ginnaawam merci. ñoo ngi lay sant la gërëm. bay daa liggéey daa mel ne nii yow ay yow mbokk ku bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ko leen grand champion champion bu gën a mag a mag a mag ko xamul yaraax dégg nga ko tey Africa ñoo nga ci caravane wës jàmbaar noo gisee wës jàmbaar ak noo gisee état wës jàmbaar noo gisee mobilisation waa yaraax. waaw waaw ñooy dañuy sant yàlla julli si yonent bi waaw di ñaanal suñu rakk Weuz jàmbaar rakk bu ñu jox cër bu ñu déggal waaw Weuz moom euh, moom mooy lool dañ koy ñaanal rek parce que boo xoolee xam ne mbër mi ngi nii man lu may wax mooy lu may wax waa Yaraax képp kuy takk ngemb Yaraax da war a ñaanal Weuz jàmbaar parce que Weuz day romb mbër yu mag yi sax bëri na ay mbër yu mag yi nga xamante ne bu ñu gisee Weuz dañ koy fan ba koy fan ci état bi ci ñeme entraînement boo xoolee Weuz dafa complet ñun ñuy nekk mbër ya ñun ñii di mbër sax da koy xool faako xam ne liggéey na kon lu ci doon dañ koy ñaanal yàlla le douze yàlla may ko ndam man instant bi lu may ñaanal Weuz roi des arènes loolu laa koy ñaan te ñun loolu la ñuy ñaan ñun bëri yëraa yëpp parce que Weuz nangu na entraînement mën na bëre jox na ay magam yëpp cër kon lu ci des ñun waa yaraax nañ ko ñaanal yàlla may kon Africa noo gisee waa yaraax tey ji caravane bi ni ñu ñu xale yi génne ndaw ñi génn mag ñi génn noo gisee mobilisation bi ak looy wax waa yaraax waaw lu ñuy wax rek ko liggéey parce que champion la yaraax yëpp dañu war a manko génnee jàppoo ko parce que boo ko jàppalee am nga champion wërs ku ko jàppale am champion kon ñun waa yaraax yëpp dañu war a génne jàppale wërs champion la loolu daal laay woo waaye yaraax yëpp le douze ñun ñëpp ñu génn def en masse dem jàppale ko yàlla may ñun ndam ñu ñibbisee ak jàmm incha allah. en tout ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa teewaay. incha allah dernier waaw waaw dernier mot bi moom daan lañuy la ñuy ñaan daal ci àll suñu loxo rek parce que si combat lañ jëm waaw Weuz day bëre la 12 man tamit damay bëre la 16 waaw dañuy ñaan ñun ñëpp di tàllal waa Yaraax yëpp ñu may ñun ndam ñun ñaan ñëpp incha allah te am nañu yaakaar liggéey nañu loolu xam nga waaw instant dañuy ñaan rek parce que liggéey nañ ko quoi ñaan yàlla Weuz ñëw def ibbi bunt bi daan la 12 ma ñëw tamit daan la 16 incha bu neexee yàlla. ñu ngi lay ñaanal ndam ci sa combat kooku mooy Africa gën a mag a mag boo ko gisee mooy Africa champion moom kàddoom rafet na ñi ngi rafetlu kàddoom bu baax a baax a baax ñu ngi continuer caravane